nga amal jëmale ko ci daam lan lay doonaat encore. balaa ñuy euh, euh, euh, def mot de la fin tàggatoo bu gaaw da nga da nga dund loo xamante ni mooy lu doy waar la fii ci Sénégal muy tenta tentation d' assassinat. tentative d'assassinat donc ma bëggoon nga revenir ci en résumé rek en résumé nga expliqué ñu lu waral loolu ah, <laughs> parce que loolu nga mucc ci dafa dafa doy war daal parce que xam naa ne du ko waaw ah moom ah, daf maa yokkaat rek santaat yàlla subhaanahu mm-hmm. parce que comme temps bi xam naa du may ma ñëwaat ci wax naa ci Sénégalais yi dégg nañ li ma ci wax euh, man yaakaaruma woon ni samay position Sénégal war na tax ñuy xalaat faat sama bakkan parce que nag réew mi réewum démocratie la ñëpp mun ñu ànd ak nguur. ñëpp mun ñu ànd ak opposition. man nekkuma opposant je suis un membre de la société civile parce que leader d'opinion laa nekk dans la société civile en tant que syndicaliste. di wax sama xalaat ci réew mi saagawuma kenn dóoruma kenn jëluma alalu kenn damay wax sama xalaat ci réew mi ci ab émission laa dem génn ci émission bi TFM di ñibbi sama kër euh, jaar ci corniche bi ñu tiire sama oto ma toog ba ci rek tiire ci sama oto yàlla xam na. bi mu euh, heureusement pour man sax laay wax jour boobu yoruma chauffeur tey bi may ñëw nii maa ngi ànd ak sama chauffeur mais jour boobu sama chauffeur dafa am gàllankoor man maa dawalal sama bopp dem ci émission bi TFM mu jeex vers minuit et demi ma ñëw ba tolloog mosquée de la divinité nga xam ne soriwul ak président de la république këram gi muy fanaan ñu tiire sama oto ma dégg tiir yi ci ginnaaw rek ma daal di avancé mm, comme ne ko jullit bu nekk sañ defee Euh, tari samay ayatu kursi parce que ñun duñ tiitee dellu ci yàlla subhanahu wa taala dawal sama oto accéléré gëm ni foofu ma nekk maa ngi en danger mais yàlla rek moo fi ne bañ a paniquer parce que loolu xam naa lañ doon xaar ma accéléré dem ba euh, première euh, situation bu ma yaakaar ne mën na ma sauver ma xalaat ni fii amul police amul commissariat amul gendarmerie amul dara mais ma xalaat ni y a des hôtels ma ne léegi hôtel bu ma njëkk a jot rek yàlla def ma ma ma premier hôtel bi ma jot mooy Radisson. Mhm. ma ñëw gaare ci bunt hôtel bi daw wax ak vigile bi bi may wàcc xool naa gis ne effectivement impact yi moom bal lay nuru parce que verre bi toj na. Mhm. te impact bi maa ngi koy gis mais jotuma faa nekk lijjanti leneen wàcc naa rek dem sama téléphone sax fa dem wax vigile bi mu ne ma duggal ci biir rapidement moom ñaa vigile ma fekk ci ci entrée bi ci géej bi. après mun ma dugal ci réception ma dem ñi fa nekk sécurité ñoo ma expliqué leen ñu professionnel rapidement mu ne woon dañu tiire sama oto après ñu rapidement ñu yéegal ma ci kaw yóbbu ma yóbbu ma yóbbu ci kaw léegi nag ñoom ñu commettre la bêtise de me poursuivre jusqu'à l'hôtel bon? Ils sont venus jusqu'au lounge. ils sont venus jusqu'à jusqu'à la réception de l'hôtel yi ñu jël ko ñu ñëw di ma wër ci hôtel bi kon même ku ci doon douter loolu moo ma rëccal man xam nga yàlla ñun gis nga yàlla moo aay ci póotum buur <laughs> gis nga booy jéem xam nga ñooñu bu ñu ma toppaloon ba ci hôtel bi sama wax lay doon rek ak waxu ku nekk mais man heureusement pour man dañ ma topp ba ci hôtel bi hôtel bi jël seen image image yoo xam ñoom kagulewuñu seen seen image leer nañ donc mu leer nañ ni ab enquête bu leer bu ñu ko defee mun na ñoo xam ñan ñoo ma toppoon ñun nag ñoo ngi xaar comme nee nañu réewum droit lañu nekk porte nañ plainte man ak sama avocat le lendemain parce que foofu laa fanaan ci hôtel bi et je les remercie Radisson parce qu'ils m'ont aménagé euh, ma fanaan ci hôtel 5 étoiles. <laughs> Euh, ma fanaan fa bi ma xëyee. ñu euh. woo vraiment huissier mu ñëw constaté avocat bi ñëw fekk ma fa ñu dem porté plainte def li ñu war a def. am na solo euh, yoon mi ngi def liggéeyam nee nañ parce que woo nañ ma ñaar yoon man ak sama avocat ñu toog ak enquêteurs yi léegi nag ñoo ngi déglu ba xam fu muy ba xam fu wànneen du mu jékki gëtam waaye li may leeral sénégalais yi mooy ku ma xam-xam ni man ku ma euh, euh, ku ma song xam ni woo woo nga naar ci guuxum soow d'accord le moment opportun su fekkente ni dossier bi bougé wul ñun daañ ci def liñ ci war a def duñ ci bañ ba def au plan international te réew mi su soppi ko ñi ko def tôt ou dinañ leeral kan moo nekkoon derrière cette affaire ak ñan ñoo ma. am na solo ak ñan ñoo tiiral sama oto sama sama oto parce que sept impact moo am six impact yoo xam ci kaw euh, euh, oto bi la nekk ak beneen bi xam moom moo dal ci pneu bi muy sept impact yoo xam dañ ma sandwich. ñii kii ñii taxawee nii ñii taxawee nii ñuy tiire ñaata ñoom mënu ma xam mais en tout cas des deux côtés lañ tiire loolu leer la loo xam ça a été constaté léegi nag li ci des mooy réew mi bu ñu demee ba toll foofu ñu ne wax waxu ñan ñoo fi violent mais réew bu ñu demee ba nit ñi amatul sécurité amatul am na loolu am na solo